moom rek la mën a joxe d'ailleurs <laughs> le devoir nous appelle l'heure est grave les pays loolu rek la mënoon joxe comme explication mais je pense que d'abord je m'interroge en tant que président conseil économique social et environnemental impact la war a mën a am dans la marche de la nation parce que moom programme mille électoral 2019 daf na conseil économique sociale et amul njariñ bu fal woon président de la république da koy tas. lu mu nangu ko tey. daf na woon da koy tas. waaw moo tax loo fas yéenee tas kay da nga jàpp ne amul impact dans la marche de la nation. moo tax ma ne bon moi je ne je m'attendais pas à autre chose qu'une déclaration pareille le devoir nous appelle le président de la république bu toogee moom sax da koy wax ne ko sa dëkk bi toll na toll goo xam ne il faut que ñëpp dugal seen loxo loolu la joxe comme explication mais. je pense que nit ñu présenté woon réew mi gënoon na fi métti ci ay dialogue politique ñu bañ na du ñëw walla mm-hmm. ñaata yoon la fi dialogue am ñu bañ na ñoom du ñu dem et je m'interroge quelle est l'efficacité mais je pense que <laughs> Aminata Touré doit beaucoup souffrir dans son silence parce que mm-hmm. xoolal tey jii ak li xew yëpp Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères mm-hmm. <laughs> parce que conseil président kii nga xam ne moo toxoon yow tu as reçu pratiquement tous les coups mu di euh, Idrissa Abdoul mbay des fois Ousmane Sonko ñu ñëw dàq la pour jox ko sa poste sa ñëw na day liggéeyal pour réewum Sénégal ñëpp kan moo bañ liggéeyal réewum Sénégal mais est-ce que dans un pays tout le monde doit être dans un camp wala pour la bonne marche de la démocratie xam nga dañuy wax mais tu peux être même dans l'opposition et être efficace pour le pouvoir ci tenter de croire que ñiy yor pouvoir bi ñi ngi déglu duñu wax ne yow li ngay wax nii parce que da ngaa bañ wala da nga compte wala loolu xam nga président de la république bu opposant am di wax war na ci mën a déglu ba xool lan moo ciy njëriñu askan wi ma jëfee ko kon man euh, le discours de Idriss Seck ça veut dire bu buñ ko tegu sax buñ ko laajoo sax dafa wax la Idriss Seck day ñëw ne la way réew mi fu mu toll moo tax man ma choisir ñëw toog mais am na ay propos yoo xam ne soo gisee mi ngi ci réseaux sociaux yi ñu muy commencé di dem waxoon na ne parce que dafa am lu ñu ko doon bàkkee tamit nit koo xam na la kàddoom dafa am solo li muy wax du ko est-ce que forcément dafa war a accepter poste président conseil économique social environnemental pour mën a liggéeyal sa réewum Sénégal. qu'est-ce derrière lan moo ne ci ginnaaw bu mu nangu ko est-ce que forcément il est mm-hmm. man. lan moo ko obligé kon bu mu nangu ko. ah lii la expliqué li ma expliqué loolu la joxe comme explication. est-ce que est-ce que doy na comme comme explication est-ce que leer. Ah, non non c'est que je veux dire moom explication politique rek la fi indi. xam nga euh, mu nekk nii actes yi ñu bi nag mooy que ni. seetlu bi mooy mooy li ma waxoon si njëlbeen bi rek sénégalais yi war nañu yeewu léegi. que d'ailleurs Babacar dogguma la mais xoolal c'est la RTS qui te retransmet en direct. la RTS qui t'a. ba ba non parce que maintenant nag Pape c'est la troisième personnalité de l'État. mais RTS euh, bu ko boycotté bu ko boycotté 2012 <laughs> ba léegi je n'ai rien contre. mais je veux dire que xoolal en fait. non non c'est c'est le rôle de la RTS qui est un peu truc. xoolal xoolal fa ñu toll oui moo tax ma ni la. tout a été planifié mais d'ailleurs mais d'ailleurs mais d'ailleurs vaste communicant la entre lépp au Sénégal. entre l'opposition et le pouvoir et ce qui est regrettable très regrettable c'est que maanaam yow aujourd'hui cher lu opposition bi tàng-tàng lu ñu la mën a wax wax wax wax mooy que ni attends-toi à ce que seen position boobu mu nekk position au pouvoir ñu wax ko si pouvoir parce que léegi euh, Idrissa Seck il se positionne en missionnaire maanaam moom nee na dafa sacrifier boppam ah pour l'intérêt du pays mm-hmm. et il se compare à un jeune militaire qui va en guerre pour mourir. Mhm. mais je vais répondre au président Macky Sall que au président Idrissa Seck fii mu toll président kii que il ne va pas au conseil économique et social pour mourir son portefeuille n'en sera que plus fourni hein ses militants n'en seront que plus servis son parti Rewmi n'en sera que plus valorisé en tout cas du point de vue des postes extraordinaire. dans ce cas Babacar mën naa laaj waaw est-ce que l'opposition doit négliger le tandem Idy Macky. non wax na ko quatre vingt li ma la wax hmm. ni mooy politique non nañu wax politique. moo tax man ni nañu wax politique. est bu mu wax leneen wax naa la léegi que hmm, hmm. man ni politiquement. il faut pas que wax na ko léegi ne euh, ñu bëri yàgg nañ ko tàggate ba léegi deewagul non il faut pas qu'on pense loolu vraiment d'accord nañ si du point de vue calcul politique man dama ni Idrissa Seck bu ñu xalaat ni il a tout à perdre politiquement si alliance ak Macky Sall man gisuma loolu te wax na la léegi nii quatre-vingt-cinq pour cent la la wax. bien au contraire waaw euh, de la république. te quatre-vingt-cinq pour la la wax de de de de de l'électorat. parce que ça va aussi bien faire mal non nañu calculer non non calculer. léegi nee na euh, Idi il avait combien si élection présidentielle bi passée. ou j'ai plus ça en tête. Euh, Macky pour cent ah. Macky Sall 58 virgule moom ñaata laa bon. moom avec 30 pour moom nee na. Ah. nee na il représente moom ak Macky Sall 85 pour cent de le calcul il est là il est là loolu la wax donc ñun c'est sur cette base là que ñoom ñu ànd mais attention c'est pas anodin pourquoi Idriss Seck di convoquer ce chiffre là. Hmm. c'est pour dans quelle c'est dans quelle perspective pourquoi. Omar Youm a réagi. j'ai fait de mon mieux pour répondre aux aspirations des populations. waaw des populations. waaw ah, tu as vu pas de président Macky Sall ça aussi au moins <laughs> au moins il y mais vous avez du boulot. il y a une nuance non c'est <laughs> non non parce que ah, euh, donc Amadou Ba moom moo réagir régul. waaw mais gis naa gis naa ndeysaan quelqu'un qui lui est très fidèle il me dit que maintenant ñi ngi opposition. <laughs> on attend de voir je dirai pas son nom. Ah. nee na ma léegi on est dans l'opposition mi ngi woote sax pour réagir mais j'ai dit que non. Euh, euh, euh, ah donc. lii la politique il ne faut pas il ne faut prendre des décisions. tant c'est c'est Amadou Ba si c'est Amadou Ba qui voulait réagir oui on va lui ouvrir. mais non je veux dire que ne réagit jamais sous le coup de l'émotion sur wax nga ni. et on n'est pas né pour être ministre. et on attend de voir. les les actes. Euh, oui. futur euh, président Macky Sall poser on attend de de voir ça veut dire quoi dama ne la Idrissa Seck buy wax. euh, pour répondre à ta question na wax politique man je peux justifier man mi ma àndul ak moom son acte bi mu posé ànd ak Macky Sall politiquement man naa ko posé mën naa ko sax justifier daal ne sax c'est une bonne chose waaye li ma dul d'accord mooy que ni. Mhm. mu bëgg ñoo indil si la marche de l'État loolu kenn du si nangu. la remercier le président euh, Omar Youm. mais parce que voilà et Aliou Ngouille Ndiaye également à remercier le président mais li ma bëgg a wax mooy que ni Idrissa politiquement il a peut de des euh, des des trucs à dans cette affaire-là dans ce jeu mais bu mu ñu indil état na ñu day sacrifier comment il peut se comparer avec benn militaire buy dem guerre. ou un policier no quand même bu bu mu yëpp Sénégalais yi c'est c'est très important koo xam ni dañ koo def sacrifier muy dem guerre pour dee yow nga ni yow sacrifice boobu moo la guidé ba nga dugg non Cheikh il faut qu'on soit sérieux mm. gis nga Sénégalais yi waratuñoo bàyyi waratuñoo pardonner dara nos hommes politiques. Mm-hmm. parce que ñoom seen i calcul politique moo jiite seeni i choix. Mm-hmm. donc de ce fait là bu ñu sénégalais yi ñun ñi toog fii peut-être sénégalais yi li ñuy wax. ñooñu il voudrait le dire il voudrait le dire peut-être que ñoom ñun ñoo am chance toog fii mais mani la. ku ciy waxati léegi na nga wax pour sa bopp ku ci wax politique daal ne lii tax ma lii tax ma def ko parce que quatre vingt cinq pour cent man ak Macky Sall la ñu représenté on verra quatre vingt cinq pour cent yooyu lan lay joxe fii ak deux mille vingt quatre. ce chiffre n'est pas anodin selon toi da am na lu muy. loolu moo justifié demam. c'est aussi simple que ça loolu la wax dafa ni on représente quatre vingt cinq pour cent de l'électorat man ak président Macky Sall que ni ça veut dire que. mais remarque Babacar. bu ñu àndee feneen devant tout le monde. Oui, mais loolu euh, ne serait-ce que pour finir. Mm-hmm. l'exemple de Sonko. entre 2017 bi nga xam ni plus fort l'est la amee. Mhm. député ak deux 2019 deux ans mu génn troisième. avec quel nombre de voix. 600 et plus 600 donc loolu war naa mën a tax bu mu calculer c'est sur cette base la lañ ko jëlee mais buy génn gouvernement bi wala bu dee beneen joute électorale di am mënul calculer représentativité am. comme par exemple 30 euh, pour cent yi mu am. wala cinq pour te dire Babacar que euh, Macky dafa aay si suul ndaanaan. waaw <laughs> les dafa ay si suul ndaanaan xam nga ndax wala <laughs> fii xam nañu baax li may wax. dafa aay si suul ndaanaan. aujourd'hui je suis sûr qu'en regardant Idrissa Seck il boit son petit lait bi ah finalement il est là. et il se <laughs> euh, de se justifier devant l'opinion de se justifier sénégalaise. c'est pour que vous dire. c'est c'est pour ça. tout fait. il a tout fait anecdote quand il a quitté euh, lors de l'université il était parti à di ko tooñ quoi na ko mais euh, non euh, Macky Thiès ne sa Seck mais grand bàyyil euh, xeer yi nag yaa ngi sànni xeer rek tout au début de du pouvoir mu ne ko ah da yow yaa jël fas def ko muy sa emblème parti fas faw ñu làbbali ko <laughs> pour mu daw waaw pour mu daw avec tout ce qui s'est passé ah. loolu yëpp aujourd'hui c'est des tout amis. ça c'est des amis tout ça pour être là mais Pape dama bëggoon juste <laughs> je veux dire que Macky ah. qu'on le veuille ou pas ay la <laughs> ci suuf daanaka dama bëggoon juste avant le maanaam dernier tour de table ñu euh, dem ci la semaine mais dafa am benn point boobu non non non euh, non juste maa ngi ñëw maa ngi ñëw de la <laughs> famille Mata non non non non li ñu war a wax dafa grave dafa bari ñu met benn dix minutes bu ndaw rek xoolal euh, parce que kaw Yankoba xam nga Yankoba mu nga jël place u Ndeye Tické hmm. te Ndeye Tické def Thiès la nekk comme Yankhoba Diattara. Hmm. Ndeye Tické génn Yankhoba dugg mais dama bëggoon juste balaa ngeen ko commenté ñu dem fekki na parce que réseaux sociaux yi am na lu bari lu muy wax. Lassana kay xam naa li mu war a gis ci réseaux sociaux yi moom dina. Lassana yow la ñuy déglu Lassana <laughs> ayca. merci beaucoup euh, Cheikh euh, kon euh, gis nga li nga xamante ne moom mooy commentaire yi eh